di gis rek mu daal di làpp ginnaaw rek ba équipe bu sapeur pompier demee ca boobu le bërëb ki nga xamante ne rek moom moo ñàkk bakkanam ne nañ daal ko gëj a gis ginnaaw ay minutes yu baree bari yoo xamante ne rek ñu ngi ko doon seet ci lañ ñi nga xamante ne rek ñoom dugg nag ca boobule bassin ci la ñu gis nag ab néewam jamono ji ñuy wax nag ne nañ bañ ko gisee daal ci la koy yóbbu fi nga xamante ne rek moom mooy ci hôpital bu Touba ngir ñu xool nag procédure bi ba léegi ñuy wax ak xamaguñu nag kooku lee jee gaañu nu mu tudd ak naka rek la labee ci boobu leen ndox waaye daal li leer ba leer mooy équipe bu sapper pompier yi nag daal def seen kéemtalaay kattan rek ba daal di koy génne ca boobule bassin waaye amul benn déclaration boo xamante ne rek daal dinañ koy def ci boobu boobule jë ba tey bu ñu sukkandikoo ci boobu boobule source nañ nag ab enquête daal ñoo ngi koy ubbi foofa ca brigade spéciale bu gendarmerie bu Touba ngir xool lekk yëf yi nag naka la demee jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi mën a am yeneen i